jërë ngeen jëf mbokk yi amaat nañ mbégte contentement ànd ak yéen émission bu mag bii nga xamante ni mooy seen xalaat ñu ngi jàkkaarloo Walf Fadjri eh, bitigu solution mi ngi fi ñu ngi leen di gërëm eh, solution TV di ànd ak yéen altine ak àllarba ak talaata ñu ngi tuub bu baax a baax a baax nag si mbooleem loo xamante ni mi ngi fiy jaar eh, te di leen jéggulu maa ngi tuub bu baax a baax a baax Ablaye Diallo jërëjëf Modou Diouf jërëjëf Abdou Top ma nga fële sa euh, tribunal ni ngeen ndokkeel moom Alaaji Sanjoogu Mbeng ak soxna bi mi amee initiative bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen ngi partagé yéen ñuy abonné waaye yéen ñiy dugal kër yi tey jii nag ki ñu àndal muy euh, Serigne Abdou xaadar Diop bokk foofu si parti bii di Papa Djibril Fall ñaa ngi ko P PF. PDF. PDF lu mu bokk ak PDS. Euh, bokkuñu dara. bokkuñu dara PDS parti démocrate sénégalais PDS mooy Pape Djibril Fall. ah maam parti bi daal aw turam la jël def ko muy parti bi. déedéet déedéet waxuma loolu de hmm. mooy Pape Djibril Fall. mooy aw turam la jël. mooy aw turam aw turam ak santam la def na ak parti bi parti bi les serviteurs la tudd. Ah. maanaam Pape Djibril Fall bi ñu ko woowee PDF defagul politique. Hmm. mi ngi mel ni nga ne Bassirou Diomaye fa Diomaye Faye am na ñuy wax PDF maanaam Bassirou. B D bi mooy Jomaay F mooy Faye. mais PDF gi léegi lu mu si wutati ginnaaw parti bi tudd PDF. mais Pape Djibril Fall moo tudd PDF maanaam au lieu nga naan Pape Djibril Fall. ñu ne PDF. loolu turam la bokkul ak parti bi loolu bi ñu ko koy woowee sax politique deful politique. deful politique loolu moo jiitu politique bu dee parti bi les serviteurs serviteur mooy jaamu askan wi. Hmm. mooy jaamu am na solo xam naa dañ ci dikk si nu mu gën a leer nañ la bàyyi nga nuyoo bu ko defee ñu daal di dugg ci waxtaan wi. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Assane maa ngi lay nuyu. di la ziyaara bu baax a baax. Mm-hmm. di ziyaare waa kër gi di ñaan solution TV. mu mm-hmm. nekk yàlla dëgëral ko mu ba mbokk ci kër yi gën a mag. amiin amiin amiin. Euh, di continuer di nekk solution mais bañ a nekk problème. amiin waay. Euh, nekk groupe de presse mais bañ a nekk groupe de pression. amiin parce que am na am na groupe de presse am na groupe de pression. Mm-hmm. ñoo ngi njort ne lu mu yàgg yàgg da nekk. reste nekk solution comme ni ko tur bi tuddee. Mhm. waaye nekk groupe de presse bañ a nekk groupe de pression incha allah. Mhm. Mhm. incha allah loolu euh, day am sax daa am sax day am day gën a am incha allah rabi bu soobee yàlla. tey jii nga ñëw fii ñu fas yéene waxtaan ci euh, parti bi nga xamante ni mooy. les serviteurs les serviteurs voilà man nag PDF rek laa daan wax. mais tey jii ni ni ñu ko xaajalee xam naa hmm. dañ ko gën a xaajalee dana baax si ñenn ñi hmm. insha allah ndax dañu am ñoo xam ne dañu naan Pape Djibril dafa jël parti bi def ko si aw turam mu yëfi boppam hmm. loolu xam naa dañ si dikk si ni mu gën a yaatoo euh, léegi lan moo waral euh, lan moo waral pdf ak le serviteur maam ñaar yooyu ñu leen di plié man sax la ba tey maa ngi naan le serviteur. <laughs> waa euh, sëñ Assane mi ngi mel. tey Mohamed ñu ngi koy nuyu bu baax mi ngi lay nuyu. Mohamed Seyid waaw maa ngi koy ziar. ah mi ngi déggante nii ñu ngi koy mm, nuyu bu baax a baax serviteurs yi. Mm-hmm. Euh, di ci jiital le président Pape Djibril Fall. Mm-hmm. muy PDF bi nga wax. PDF. waa dama la bëgg xamal ne. mi ngi mel ne tey yow nga ne Serigne Assane Mesere. Mm. xam nga seriñ mooy S. waaw assan bi mooy A. A mooy bi M bi mooy M. au lieu nga naan Serigne Assane Mesere muy gudd nga ne ah. SAM. Ah. c'est aussi simple que ça du ma ne du xaj na hmm? tënk la daal. waaw ah, tënk bañ mu bind mu bari. bañ bind mu bari xëy na tënk la waaye hmm. loolu moom turu Pape Djibril Fall la. Hmm. bokkul ak turu parti bi. turu parti bi nan la. turu parti mooy les serviteurs. serviteur bu ñu ko bëggee tekk ci wolof mooy. jaamu askan wi. maanaam koo xam ne da war a ñëw nekk jaamu askan wi. comme ba bu doon arabe ñu ne mooy baatu xaadim mhm. mooy un serviteur koo xam danga ñëw pour jaamu askan wi waaye nag ngir jëmmi suñu borom maanaam liggéeyal askan wi ngir yàlla mhm. loolu mooy baatu serviteur ñu mën ko tekkee ci wolof baatu askan ñu mën ko tekkee ci wolof euh, jaamu askan wi loolu mooy partie des serviteurs. Mhm. léegi est-ce que bu ngeen demoon ji ba yàlla jox leen nguur gi da ngeen di continuer tur boobu ndax bu boobaa ndax ñi ñu fi gis ñuy laaj dañ naan ñun dañuy jaamu seen soxla dañuy jaamu seen soxla buñ demee ba jël réew mi après ñun ñooy góor bi ko di leen jaamu ñoom. waaw ñun xeex lu mel noonu moo tax ñu dugg ci politique amaana bu fekkoonte ne li war a am yëpp am na am na mm-hmm. mbir yëpp tegu ci yoon amaana kon leneen la ñuy def. Mm-hmm. waaye dañoo seetlu lu mel ni li nga wax mooy kuy laaj di wax ne askan wi laa fi nekkal. Mm-hmm. dama bëgg a defaral askan wi waaye bu faloo rek ñu seetlu ne ndeke nekkalu fi askan wi boppam la fi nekkal. ndeke defarul askan wi da leen di defaroo mhm. maanaam defaral leen ak defaroo leen du benn mhm. bari nañu daan wax dañuy defaral askan wi waaye bi ñu yegsee moom li ñu gis mooy mhm. dañoo defaroo askan wi euh, ku mel ne président Macky bi muy wut nguur daana wax la patrie avant le parti mooy daal soxlay askan wi balaa soxlay parti bi waaye bu ñu xoolee ci pratique yi ak jëf yi mel na ne le contraire la bëggoon wax safaan maanaam la le parti avant la patrie nga xam ne da ngay falu jiital sa bopp teg ci say mbokk teg ci sa mbokki mbokk door ci teg réew mi. Mm-hmm. nga xam ne bu ñu yegg si daanaka dara fa des. Mm-hmm. léegi nag bi ñu constaté loolu noonu la def. li ma seetlu man noonu la def effectivement. Mm-hmm. maanaam au lieu mu def li mu waxoon mooy. la patrie avant le parti. maanaam jiital réew mi door ci teg parti bi. waaye daa ñëw jiital parti bi teg ci mbokkam teg ci mbokki mbokkam. mooy ñi mu àndal daal politique mbokk soxnaam euh, mbokk ñëpp ci dugg. Mhm. door ci teg soxla si réew mi moo tax fukk yu waroon def amaana def na dara duma ma bokk ci ñu def fi dara def naa dara. Mhm. waaye amaana bu doon fukk la waroon def. Mhm. peut-être ñett la def. te la ko jiital la ko waral mooy au lieu mu jiital intérêt réew mi. mais mu dugg ci ay calcul politique ba mu indi sooxe yu méttee métti donc nag ñun séditaires bi ñu gisee lool. ci la ñu dugg ci politique. bi ñu duggee ci politique itam bu ñu waxee dañ fee war a nekk dañ fi nekkal askan wi yomb naa gëm. ndax seen laat moo doon wax ne nit dëgg-dëgg boo bëggee xam nit mooy da ngay fob jëfi démb ak jëfi tayam. wala waxi démb ak waxi tayam. ku mel ni ki jiite parti muy président Pape Diouf fal maa ngi koy di ko ñaanal. mel naa ne moom bi muy nekkal askan wi boobu defagul politique maanaam fu mu mas a jaar ci métier. askan wi la fi nekkaloon bi muy def journalisme. Euh, def na ko ba ba bàyyi. yàlla dogal na bokk ñu ne journaliste yi gën a brillant maanaam ñi gën a fës loolu yàlla may na ko ko te ba fii may waxee yow mosoo dégg benn yoon ñu ne président Pape Diouf Fall ko koo porte plainte pour diffamation wala diffusion de fausse nouvelle te ku xam-xam ne loolu lu bëree bëri lu ñu gis la ci métier journalisme li mu tekk mooy kon mës waxal boppam mës waxal Samba wala Demba a chaque fois bu mbir amee li mu laaj mooy dëgg-dëgg lan mooy dëgg ci mbir mi lan mooy xew fan la intérêt askan wi féete. loolu ci la nekkoon bi muy laata muy def politique. bi mu duggee ci politique tamit loolu la continuer parce que amaana laata muy def politique def na noo def na loolu di kaasal askan wi di waxal waaye gis na ne loolu soppi amul soppeekut. ndax pour nga mën a soppi rek da ngay ñëw ci fi ñuy dogale mooy da ngay falu. mu gis ne wax baax na naam dénoncé baax na naam waaye def nañ ko ay ati at sottiwut wala li sotti bariwul. léegi nag ñu def beneen jéego. mooy jéem a dem fa ñuy dogalee te loolu demande askan wi la mën naa la jox sama propre cas bi may suivre Pape Diouf Fall te xamanteegun gisaguma ko sax muy wax ci laa mas a bind benn texte di wax naan mm, I have a dream maanaam di jéem a toppandoo Martin Luther King ñi xam histoire boobu moo américain bi wax naan gént naa bis nit ku ñuul ak nit ku weex tolloo nangam comme ni xew Amérique léegi mm-hmm. ci laa bindoon benn texte tudde ko ay xaafadir yi man ne may gént naa benn bis ñëw ku ñuy wax Pape Diouf Fall jiite Sénégal booba gisantee ma ak moom hmm. te xamuma woon sax ndax moom am na intention def def politique wala déet hmm. waaye man maa amoon intention moom mu def politique hmm. yàlla dogal ndeke ni ma ko doon xalaate ba bindoon ko te boobu gisanteegun ay junni junni sénégalais xalaate woon ko noonu di ko wax ne ko euh, président Pape li ngay def baax na waaye nga jóge ci euh, fii nga toog nii di wax. Mhm. dem nag ca dogalukaay ya mhm. nga xam ne kon boo gisee li tax moom bi mu duggee ci politique. Mhm. mu am ci perse percée maanaam réussite bi mu ci am. maanaam askan wi ñoo ne ko wóor nga kaañu fal la xam nga li ñu daan dégg mooy politicien moo daan ñëw ne man damaa jub damaa wóor def naa lii def naa laa fal leen ma moom askan ñoo ne ko ñoon xam nañ ne jub nga kaañu fal la c'est pas la même chose. jub naa fal leen ma ak jub nga kaañu fal la. moo tax bi mu duggee ci politique ci espace bu gàtt. ma am ci lim ci am te fekk fi woon parti bu dëgër bu mu doon wala ay milliards yu mu doon waaye ngëm yàlla ak Sénégal yi gëm ne ñoom la fi nekkal moo tax bi mu wootee ñu baree bari wuy si ko donc loolu ma waral tey du gëm ci politique am yéen tamit def politique bu wuute ak bi ñu daan xam xam nga politique dafa bari te wuute maanaam am na politique ngir falu wala ngir mën a bokk ci coow li ñu lay wax rek di la tudd mais dafa am politique aussi pour tabax réew mi am politique pour tabax réew mi tabax nit ñi te ñun boobu lañ boobu lañ boobu lañ choisir mooy bi ci gën a kawe bi ci ëpp solo mooy dañuy dugg ci politique non seulement pour tabax une économie maanaam fexe ba Sénégal ak ndóol jeex fi ñu tabax réew mi ñu tabax dëkk bi waaye ñu tabax réew mi ñu tabax nit ñi rawatina ndaw ñi parce que li histoire jàngale te boroom xam-xam yu bari wax ko mooy dañ ne buñ la joxee aw askan pour nga jiite leen euh, li gën nga tabax réew mi tabax askan bi su ñaar yëpp mënta nekk nee na bàyyi réew mi tabax askan yi rawatina ndaw ñi ndaw ñooñu bu ñu màggee ñoom dinañ tabax réew mi tabax seen moroomi génération waaye bu la joxee réew tabaxoo réew mi tabaxoo ndaw ñi même boo tabaxee réew mi sax laa wax de te tabaxoo ndaw ñi su ndaw ñi màggee toj réew mi jàpp naa li fi xew ci ay manifestation ak yu baree baree bari loolu firnde la ci ne hmm. kon ñi doon politique dañoo lajj. ñi doon politique dañoo lajj dañoo lajj. effectivement danañ ci dikkaat continuer waat ndax loolu si mbiru opposition ak pouvoir beeg yooyu mais Pape Djibril Fall bi muy nekk euh, TFM di def jàkkaarloo. Mhm. Euh, Sénégal xaaj bi dañoo jàppoon ne da doon parparloo ci ab liggéeyam. Mhm. nan la si parparloo woon daa ñëwoon féete ak Ousmane Sonko di ko défendre. Mhm. ak di ko jàppale ak di ko pousse ak di ko gën a xamale ak nit ñi ak di gën a xamale ab liggéeyam ak taxawaayam. bi mu demee ba si biir mu jekk-jekk ni damay politique. Mm-hmm. nit ñëpp ni ah xamoon nañ ko si Ousmane Sonko la jëm. Mm-hmm. mu daal def nii aw yoonu boppam di demul si yeewi askan wi di demul fenn daa def ni aw yoonu boppam dem ñu ni ah comme que am na boppam dem. Mm-hmm. xamul fu muy teg tànkam. far yàlla dimbali ko ba mu doon député. mais noonu mu doon doxee noona si eh, liggéeyam noonu ñu jàpp ne Ousmane Sonko da doon jàppale di ko kii est-ce que bu ngeen jëlee réew mi du continuer xool nu mu kii ak yooyu. waaw xam nga léegi nit ñi dañuy ji nit loo xamante ne ci ñoom la nekk. Hmm. xam nga nit ñi ñu ne nit day. par par mais jàkkaarloo moom seetlu woon nga ko moom. waaw non moom kenn daw ko fa laal. maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ah, ñëw demal <laughs> nit ñi léeg-léeg am problème euh, nit ñi léeg-léeg dañuy jiñaate loo xam ne ci ñoom la nekk muy par parloo. Mhm. Pape Diouf Fall àndul ak Ousmane Sonko contrôle Ousmane Sonko. Mhm. mag yi àndut ak moom. Mhm. xam nga lu muy def. bu mbir xewee. moom li mu gëm ne moo ciy dëgg. mu taxaw ci mu taxaw bu dee daa gëm ne Assane. Mm-hmm. moo ne ci dëgg mu taxaw défendre ko moment boobu nag képp koo xam ne partisan Assane nga dafa naan ah sa waay moo fi man mm-hmm. mais bu subaa buñ demee. Mm-hmm. meneen mbir xew. ma jàpp ne Assane amul dëgg. damay taxaw ci côté Assane amul dëgg. wala xaw ma ndax am na dëgg xaw ma ndax amul dëgg ndax mbir dina demee noonu mbir dina ñëw yow nga gëm ne diw moo am dëgg. mbir ñëw nga gëm ne diw mi amul dëgg mm-hmm. mbir ñëw xamoo ndax lan moo ciy dëgg mm-hmm. ñetti situation bu ci ne ak comportement bi nga war a amee mm-hmm. ak approche bi nga war a amee nit ñi li ñu li ñu bëgg mooy la ma doon wax ci Assane démb ma di ko konne di wax te dañuy wax ne mbir li ñu ca xamoon bu soppi ko la nga ca doon wax amaana mu soppeeku kon nekku ne Pape Diouf Fall moo soppeeku mais situation yi ñoo dul bokk muy muy première explication foofu noonu am na sew sew si exemple bi nga jël ci man. Mhm. maam Pape bi mu ñëwee dafa gis mbir mi mu jàpp ni usmaan Sonko nekk si dëgg. Mhm. mu taxaw si wetam di ko défendre. Mhm. dem na ba si biir nag mu xam ci leneen mu tëdd njaaxaanaay wala mu maandu ci. non waxuma loolu. non li nga wax exemple bi nga jël ci man exemple ni wuma ci Pape Djibril Fall dama expliqué de manière générale loolu ah? non Pape Djibril laa la ne la bi muy nekk foofu gars yëpp dañ ni problème bi mu amee dafa taxaw Ousmane Sonko taxaw ci wetam di ko yëkk yëkkati di ko jàppale nga ni loola mën ngaa dem ba ci biir nga tëdd si njaaxaanaay wala nga maandu ca non ba tey comprendre de. Mm, mu leer maanaam nit ñi ñii Sénégalais dañ ne woon. Mm. dafa ñëw taxaw Ousmane Sonko ci mbir mi ni ko bu ko kenn laal. Mm-hmm. képp ku ko laal mun la nekkoo ci dëgg. Mm-hmm. Ousmane nekk ci dëgg mais gis nañ ne bi mu jógee si si émission bopp ba léegi dafa maandu ci mbir moom nekk ci mbirum boppam. waaw dama ne la. Mm. bu yàgguloo mbaay bi ñu àttee Ousmane Sonko ci affaire Adji Sarr. Mm-hmm. wax ne viol bi ñu ko doon toppee amut mais corruption de la jeunesse lañ ko lañ koy toppee. émission bi mu njëkk a am. am mhm. ko France 24. lu ëpp ca temps da ko consacré ci défendre Ousmane Sonko pourtant ne ne comme li ñu ko doon toppee amul dañu ko war a bàyyi. Mhm. France 24 fa la ko waxee. ça veut dire que ne kon li nit ñi wax ni daf koo contre contre ko waaye dama exemple laa joxe rek de manière générale. Mhm. xëy na dama ne la mbir dina xew. man ma gëm ni Assane mii moo ne ci dëgg ma défendre ko. bu subaa bu fekkee Assane newul ci dëgg. ma ñàkk koo défendre. amaana ñi ànd ak Assane dañ naan dañoo yaakaar ne dama war a di ko défendre. ci exemple la rek. non exemple la pour néew ma c'est le cas de Pape dama ne rek liy waral nit liy waral nit liy waral man. ma jël position ci benn affaire tey suba jëluma ci position. Ah, mais ah. yow li waral jëluma position xamuloo ko. Hmm, li hmm. amaana man damaa jàpp ne Assane ni ci dëgg ma défendre ko. Hmm. suba mën naa am mbir moo xam ne bokkuma ci moom xalaat. maanaam wuute xalaat boobu sax du contre. xam nga Sénégal il faut ñu comprendre ne wuute nit xalaat. ak contre ko du benn il faut ñu accepter xalaat yi. suñu borom bindee doomu aadama yi. la leen def ñu ci ay li ñuy wax ci arab ay anwaax muxtalifaat maanaam ci ay genre yu wuute mm-hmm. yoo xamante ne faaw dañu wute ni ñu xalaate wute ni ñuy gisee mm-hmm. kii dana dañuy wax ne maanaam loo mën a defender ba loo gëm ba mën caa joxe sa bakkan mm-hmm. am na ko ko weddi ba mën caa joxe bakkanam ah, parce que noonu la yàlla bind mbir yi léegi di xew mooy yow li nga gëm ci sa conscience nga gëm ko dox ci li keneen gëm man moom bu ma ko gëmut damay jàpp ne. Hmm. yow li nga gëm sa dëgg la naa la ko bàyyee. Hmm. soit ma dem ba gis ne maa maa juum ma fekk si la wala nga dem ba gis ne yaa juum nga fekk si ma. Hmm. bu dee loolu amul ku ne respecté sa moroom. parce que yi ñu boole. mu ëpp foofu yi ñu xajale. yaa ngi dégg yi ñu boole mu ëpp. yi ñu xajal dañ ci maslaa daal ku ne respecté sa bopp. sa sa morom après ñu dem ñu ñu rafet jot ci nit ñi. ñu rafet jot ci ma. bi mu góorgóorloo ba yàlla dogal ngeen ànd ak moom pousse ko mu dugg ensemble. ñëpp yaakaar ni day dem far fii wala mu far fee ñii soxla ko ñee soxla ko mu daal ni daal du si bokk si fen day dem ak boppam te it yi nee nañ sax la ñëw ensemble léegi bëreetul te it dañ ko jox oto ensemble essence ensemble lépp ensemble mais su ko neexee day ñëw su ko neexee du ñëw loolu loo ma si mën a leeral. d' abord assemblée bi yoon joxe wuñu oto. Hmm? pour wax la dama ne assemblée nationale bii. Hmm. joxe oto. joxe wuñu oto député amuñu oto. lañ joxe xaalis. xëy na jox nañ indemnité mais joxe wuñu oto. Hmm. ñaar président Pape Diouf Fall ku naan daa gëj assemblée nationale c'est parce que xamoo li ngay wax xam nga assemblée itam li feeñ ci bi. Hmm. liggéeyu commission yi ñoo ëpp solo fuuf. Hmm. te loolu du feeñ ci bi. te xam loolu buy dem kenn du ko yëg. Hmm. nit ñi nañ vraiment maandu te bañ a wax lu leen la yor waaye président Pape Diouf Fall moom. li taxoon ñu faal ko ma nga ca. man mii di wax yow gëm loolu moo tax ma ne ci moom ba léegi. ak junniy junni sénégalais comme ñu jàpp ne daf ne ci leneen peut-être ñoom ñoo xam lu tax ñu koy wax mais ce qui est li taxoon Sénégal yi wóolu ko ba fal ko ba léegi ci la nekk wax dëgg yàlla. mais bi ñuy ñëwee soxla mu maturité. Mhm. tàllal ko loxol moom demut demut fenn de. te ñii dañoo soxla woon maturité pour. am am fa doole pour moom bokk si ñoom rek dañu am maturité. non opposition bi bi mu bokk ak ñoom gis-gis. non moom ci opposition bi la ma sa bokk. mais majorité bi maanaam bokk ci opposition. Mhm. ak dem dugg ci benn groupe parlementaire. c'est pas la mhm. même chose. Euh, ku mel ne Ousmane Sonko. cinq ans yi mu mujj yi mu njëkk a nekk assemblée nationale député non la. mooy bokkuma ci groupe bi man askan wi laa fi nekkal loolu choix la nañ ko ko respecteel suñu choix la. te ci la nekk di ci dox ba heure bi comme loolu gëm am na ci droit nañ ko ko respecteel. waaw loolu am na solo mais gis nga weer bii jàll. si loolu nga ma wax ni ma damaa xamul section la wala kii bu ensemble bi moog Thierno Alassane Sall weer bi lépp teguñu fa seen tànk. bu waa ensemble sax am na leen metti ndax dañ dafa dafay ñoom ñu war a ñëw ndax dañoo dañuy. dafay force daal ñu war a ñëw te weeru yàlla teguñu fa seen tànk foofu sa ensemble ba. Euh, loolu moom Thierno Alassane Sall te moom Thierno Alassane Sall. nit ñi bokkoon nañ si ñi ëpp yaakaar ndax bi ñu ñëwee nanguñoo féete fenn dañoo taxaw si digg bi waaye it seenu taxawaay fa dafa am solo ñoom ñaar ñooñu weer teguñu fa seen tànk. li nga xam ne mën naa cee tontaal mooy. li taxoon askan wi yóbbu assemblée nationale mi ngi ci matin midi soir. mais ma tax weeru yàlla. non loolu mën ma ci tontu dèjà yaa ma jox information boobu mënu ma ci tontu. dëgg yàlla xëy na allocation moom dana ci tontu xaw ma ndax ni nga ko waxee noonu la demee. waaw noonu la demee waaw mu ngi koy. waaw loolu allocation peut être ma xam ko. de waaye nag ensemble bi xam nga lu ñëpp bokk la. su fa dee teew war ngaa xam bu fa teewul war ngaa xam. li ma xam moom ma nga fay teew. li ma xam ma nga li ma xam moom ma nga fay teew amaan ak suur sàngam ndax teewoon wala teewul loolu mu war a te it sax wax dëgg fa yàlla li ma gis man jàpp ma ne loolu moo ëpp solo dëgg-dëgg xam nga nit ki boo koy jugé hmm. da nga koy jugé ci maanaam tey parcours am wala discours am wala profil am hmm. maanaam président Pape ji boppam ku ko xam-xam ne maanaam amul droit benn yoon xelam xalaatu ko askan wi fal ko ngi dara mu ne ci leneen maanaam bu nekkul assemblée nationale itam mi ngi dugg ci sénégalais yi di campagne bi ngir ngir ngir gagné campagne pour lan est moom mu daal dem si li assemblée la liggéey bi xam nga liggéeyu assemblée nationale du biir assemblée nationale kese mooy war nga dem seeti askat wi xam jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel mën ko ñëw indi ko te gis naa lu bare bare lu mu ci def ak yoo xamante ne sax day réglé woo ci moom te kenn du ko xam. Hmm. maanaam bi dëkk day ñëw ñu ni ko ah ñu ne am nañ problème euh, ambulance par exemple wala am lañu problème mu lii wala mu dox ci ba mu sotti. Hmm. donc li mu wax daal. Hmm. ci guddal ci gàttal. mooy amul benn député bu nekk assemblée nationale boo xamante ne sa taxawaay moo gën a rafet taxawaay Pape Djibril Fall ah, te loolu aussi ñu ay sénégalais yoo xamante ne politique gu faruñu fenn ñoo ko seeda ay yoon yoon ma dégg mm-hmm. am na solo wàllum parrainage bi yéen jëli ngeen fiisee matal ngeen wala matalu leen waaw parrainage bi nga may ma aussi ma ma ma sant sénégalais yi rawatina serviteurs yi parce que wax dëgg fa yàlla euh, taxaw nañ ci taxawaay bu am am solo bi ñu commencé rek man man maa jiite département bu Mbacké maa ngi leen di siyaar Touba yëpp di di leen ñaanal hmm. maanaam sama téléphone li ci doon ñëw ci ay parrainage ak ñi may woo dafa mujjoon sax mënu ma ko gérer ba dëgg yàlla ci téléphone yi ci carte d'identité yi woote ñi ma doon woote pour bëgg a parrainer hmm. dafa mujjoon sax mënu ma ko gérer te xam naa noonu la xewee ci yeneen yeneen yeneen gox yi ku ci ne ma orienté la dugguma la foofu nga baal na mhm. waa Bougane am na ku ma invité barki dem Cheikh mu Bougane mhm. nee na moom maam fo département Mbàkke maam lañ fa am sax si ay parrainage dina yéem mhm. waa Pastef wax maam ñëpp daal département Mbacké daal mel na ne la fa jóge si ay parrainage ëpp na 2 millions wala 4 wala 10 millions wala 30 millions euh, de parrainage. Euh, loolu mën a nekkee loolu yaa ko wax. li mu li mu 2 millions 1 million tudd ma ko. ñëpp a matal foofu. li ma xam daal mooy mooy département bi gën a peuplé ci Sénégal. Hmm. xëy loolu mën naa war a lool. mooy département ah, moo tax ëpp ay nit ci hmm. Sénégal ba mu daj. Hmm. département Mbacké mooy département le plus peuplé. xëy na loolu la de façon ñun. Euh, gis nañ fa suñu bopp. natal ngeen yéen foofu. bu yàgg na. foofu si département bi lu ëpp fuuf liñ fa liñ fa soxla woon sax am nañ ko. Hmm. waaw li ñeneen ñi wax nag wax dëgg engagé wu. parce waaw xaw ma ci aw ma ci xam-xam. wax dëgg yow daal matal nga fa moom. doublon yaa ngi fa demee foofa. non doublon du ñu du ñu am doublon. mënuñu hmm? mënuñu am doublon. non mën naa nekk. non xam nga li dafa am lu ñu wooyee doublon interne ak doublon externe. Hmm. doublon interne mooy carte d'identité nga saisir ko ñaari yoon mais ñun yàlla dogal na am ay techniciens yu xarañ yoo xamante ne euh, maa ngi nuyuwaale sëñ Babacar Seye di ko ziar baax di ko ñaanal ci taxawaayam. Mm. am nañ xarañ goo xamante ne bépp boo xamante ne jaar na ci mi ngi ci saisir nañ ko ba pare bu ñëwaatee koy rejeté. koy rejeté machine bi. machine bi moo koy kii ah nit ki parrainé nañu. ne parrainé na waaw parrainé mais ay këyit dong la ñuy bind di. defuñu ko si machine non non non déedéet. non xam nga man tey jii sa cas sama carte d'identité ma jox la ko. Ah, waaye ma dama koy saisir dama la ko jox nii nga bind ko si fooy ma joxaat ko keneen mu bind ko si aw fooy. léegi loolu lan la si machine mën a xam lan moo si yoonu machine. non xam nga dafa am ay fooy ak clé xam nga euh, conseil conseil boo dañ lay jox clé. waaw mais boo ko defee ci clé kay am na logiciel yoo koy dugal bu ci bu ci ñëw ñaar yoon mu génnee ko. Hmm. loolu kay du dara ci ci wàllum technologie ci wàllum technologie bi. Hmm, hmm, léegi yéen euh, déposé ngeen euh, xaalis bi wala déposé gu leen. waaw loolu aussi ñu ngi sant suñu borom baax di sant Sénégal seen taxawaay yàlla dogal na wax dëgg yàlla ñu fay seen yéene ba caution bi mën na bu yàgg ba déposé nañ ko donc parrainage bi bouclé nañ ko. caution bi itam man na déposé nañ ko. donc li ñu xaar rek. li ñu xaar rabbi euh, bis waxtu jot ñu ñu ñu ñu. ñu continuer liggéey bi ñu doon def parce que mosuñu ko bàyyi mooy ne ci terrain bi parce que xam na ne politique aussi. Hmm. wax ci plateau yi baax na wax ci rajo yi baax na. waaye nag li ci ëpp solo. Hmm. mooy nga dem wax ak askan wi. Hmm. Euh, te Sénégal daa bëgg koo ko yëg. fi nii mën nga nekk fële di wax mu lay dégg waaye bis boo ñëwee ba mu jàkkaarloo yow mu xam ne yaa ko tax a jóg hmm. loolu considération ak yëg-yëg bi mu ci am du benn hmm. dëkk hmm. na ne moom it metti woon na trop jafe woon na ndax dañoo gisoon ku demee ni Papa Djibril Fall ak euh, ñeneen ak yeneen génnoon di naqarlu ñi nga xamante ni am nañ député ba pare di xëccoog ñoom parrainage yi ba ñu bëri jàppoon ne nañ yërëm leen pap ndax euh, mi ngi jooy ni amul ay parrainage ba tax mu bëgg gaa yi bàyyi koog parrainage yi léegi diggante bi boo ne fee matal na est que xel dana ko. Assane Assane loolu waxu waxu yàq der la. non Pape Djibril ko wax ñu dégg. mais da nga may laaj lu mu wax ak kañ la ko wax ak fan la ko waxee. ñëwal déjà bi mu koy wax. Hmm. parrainage bi tàmbaleegut est-ce que xam nga loolu. boobu parrainage bi tàmbaleegut léegi nag boobu kon. est-ce que damay expliquer xam nga aussi Sénégal yi aussi ñeen ñi bokk wax dëgg <laughs> nit day wax ay waxam ñu déformé ko. yóbbu ko fa leen neex. Ah. loolu amul problème penc mi lañ lañ gis rek. waa dam waa man kay ma fa newoon ba wax jay am man naa la wax li ci xew non. ah yàlla xanaa gën a mën a seere ci wax. Ah, waxal ak fon nekkoon lu ko waraloon. maanaam ab conférence de presse la doon def. Hmm. di wax ci li jëm ci wàllu mbëkk mi. Hmm. ak situation Sénégal ak yu bëree bëri. Hmm. ba muy tëj mu ne nag ñu ngi waaj a commencé ñu ngi waaj dem ci affaire parrainage. su ma sañoon. ñi nga xamante ne yàlla dogal ñu am ay député wala ñu am a. Euh, parrainé. bu ma mhm. soñoon ñu bañ ñu bàyyee terrain bi ñeneen ñi ñi nga xam ne amaana amuñu yenn popularité. Mhm. waaye nag amaana am nañ xalaat yu rafet. Mhm. bu ma soñoon sénégalais bu am xalaat bu rafet ñu bàyyi ko. mu bokk ndax am na koo xam ne amaana mënul gagné. mais am na pourtant xalaat yu rafet rafet. mu jàpp ne kooku aussi xalaatam yooyu waruñ ko mën nañ ko war nañ ko bàyyi mu mu exprimer ko. ci contexte boobu la ko waxoon boppam taxu doon muy wax. boppam taxu doon muy wax déedéet loolu ci euh, conférence de presse la woon boo xam ne. Mhm. wax na ca yu bëree bëri lii la ca mujjee. kaay mhm. bàyyi ba élection yi ñëw ba pare bi commencé ñu dagg wax jooja. Mhm. mel ne tey la ko wax. <laughs> fekk ne déedéet déedéet ah, mais bon dafay wane ne rek. jàpp naa ni ku gars yi ku leen tiitalut. Euh, doo nekk seen menace duñ duñ kii ci yow. parce que politiciens yi bari nañ fi. waaye mel na liñ ko ko li liñ koy waxal ak li ñu ko ko waxal waxaluñ ko ñeneen ñi loolu nag dafay tekki rek ne. gaa yi xam na ne moom c'est la solution. te amaana. am na ñoo xam ne arrangé wu leen léegi ni ñuy def mooy da nga koy wooyee problème xam nga solution boo ko euh, mas naa dégg si lam ñes yàlla na suñu borom yokk leeram wax ko mu ne Occident yi tubaab yi mu ngi gisee l'islam xam ne l'islam c'est la solution mais arrangé wu leen hmm. non danaan non nañ ko wooyee problème hmm. parce que boo ko wooyee solution mënatoo ko xeex hmm. dañ ko wooyee problème de la même manière am na ñoo xamante ne xaj na xam na ne président Pape Diouf Fall c' est la solution mais mënoo koo tuddi solution bu bari di ko xeex da nga koy tuddi problème. Hmm. léegi loo loo loo loo kii xëpp ko. Hmm. pour man ko xeex. awale ko ci foofu. Hmm. mais comprendre nañ loolu. comprendre te du tee ñu continuer ci li ñu nekk ndax xam na ne. yéen coalition ngeen di demee wala Pape Djibril yéen ñi ànd ak moom wala coalition ngeen demee ndax bii jàll dégg naa coalition ngeen demee daanaka amoon na ay sax jafe-jafe ak yeneen bii ndax coalition. may wax yow ci suñu parti lañ doon liggéey maanaam parrainage yi ci suñu propre parti lañ ko wutee. amu leen ay jàppaleeg ay ñu ñëw maa ngi maa ngi ñëw dama ne. yi. Hmm. ci suñu propre parti. te hmm. lañ ko wutee mooy parti les serviteurs jaamu askan wi. Hmm. caution bi ci suñu propre parti lañ ko wutee hmm. amaana nag bu fekkente ni jàll na ba ñu validé ñu door ubbeeku ci ay hmm. coalition mais fi may waxee yow hmm. suñu naan suñu jubbu bopp la demee ah, li wax naan suñu jubbu bopp la demee parce itam sénégalais yi wane nañ ne am ngeen doole si diggante bi de ah waaw bien sûr incha allah ah, ñaan yàlla mu yokk rek xam naa tëj ku demee ni Pape Djibril gis nañu diggante mm-hmm. ak opposition bi wala ñenn si opposition mm-hmm. bi man su ma génnoon daal dem si réew mi daal dem ne damay laaj réew mi mboolem ñi daan wax war mm. nañoo mën a jóg yanu ma. xam ne mm. lii kër kii si ñun la fàq ko sag la. Mm. ñu ne kii da daan chronique wala da daan wax journaliste la woon bàyyi na léegi day laaj réew mi sag la mais dafa mel ne daal gars yi jubluwuñ ko dañ koy sànni xeer di ko boros di ko fakkastal. di ko gàjj di ko xusi. waa loolu de. Hmm? man mii di wax yow loolu laa gëm. loolu laa yaakaar. Hmm. maanaam tey sama confrère. Hmm. tey maag Assane ñu bokk métier mi. su duggee ci mbir. Hmm. war naa ko jàppale waaye nag surtout bu fekkente ne. Hmm. natt naa ko ci nattuwaay ba gis ne hmm. ku jub la. gis naa ni itam am na xam-xam. parce que itam doyul rek nga ne nit ñoo bokk métier kon naa ko jàppale. bu fekkee jub na. à une condition. mais nag yàlla dafa dogal comme ni nga waxee moo gars yi ñu bokk métier bi. mu honoré métier bi def ci liggéey bu am sol wax naa la léegi. Pape Diouf Fall def na journalisme ba bàyyi. mosoo dégg rek ñu ne dañ koo porté plainte parce que dafa def diffamation wala dafa def euh, diffusion de fausse nouvelle te loolu bari na ñu koy dégg mm-hmm. loolu li mu tekk mooy rafetuk liggéeyam mm-hmm. léegi nag kon li normal mooy bu duggee ci lu mel ni itam mm-hmm. même ku ko mënut jàppal jàppale itam nga bañ koo xeex waaye li ma gis mooy dafa mel ni ñenn ñi luñ ko safaan te bëgguñ ko waxal yiw luñ ko safaan te bëgguñu ko waxal yiw su ko defee ni ngay def rek jël bii ni tëll ji bi rajaxe maanaam pour wane image boo xamante ne xam nga ne lii du image am mhm. di ko dëkkal fu ne loolu vraiment mais lu du teel yàlla na mu dina am xam nga mhm. lañ moo ñu ëppaloon solo mhm. mooy ñun li ñuy wut yàllaa ko joxe te gëm na ni xeebuñu ci ñun xeebuñu ci suñu bopp te Sénégal yi koy joxe xeebuñu ci li ci des amul solo ci loolu rek lañ ne bu opposition bi wateetee da ngeen dem wala ndax gis nañ ni bi ngeen demoon euh, ñu yuuxu woon ko amoon na ay détails bañ jege si détails yooyu ñu jàpp ni am am na ko suuxlu am na ñoo ñoo waral loola ay xew sew yi suuf ñu tàggoo waale ko ñu tàggoo waale ko temps bi jeex na waaw maa ngi waaw gàtt na trop suñu asan <laughs> ah, dem na de bari na de <laughs> gàtt na trop waaye xam nga li mu wax mooy opposition bi bu wootee ñoo fay jiitu ndax ñun ñooy opposition bi lañ gëm mhm. ñun ñooy opposition bi man mhm. ñu wootee Sénégal mhm. fu ñu ko man di wootee dañ fa dem ak lu ñu fa man di fekk dañuy sóoraale yuuxu ah yuuxoo yi xam nga yuuxoo moom bu fekkoon dañ ku génn ñu ànd ak yow yuuxoo la kenn du génn dafa am nag ñu am discipline am ñu am yar am ñu nite parce que nit yàlla dogalul ñëpp mën a ànd bu fekkente ne man ki ma àndal ci génn dama koy yuuxoo mais amul kuy génte am duñ la duñ la yuuxoo parce que amul ku fi ñëpp àndal yàlla sax ñëpp ànduñu ak moom mais nag fair play ak discipline mooy tax mais ànduma ak diw mais dama koy bàyyi mu doxal pourquoi ma am na solo mais amul problème on ensemble ñu lay sant baax di la waaw sëñ Assane bëgg naa lool vraiment kontaan naa seulement rek émission bi li ko li ma waroon wax waxuma genn wàll gi. waaw <laughs> gudd na de waxtaan wi neex rek. ah, ah kon <laughs> nag yàlla baax na kon daal ñu ngi tàggoo tëj di leen hmm. sant comme ni ma ko waxee kër gi. Hmm. nekk solution. Hmm. nekk groupe de presse bu am koy siyaare baax di ko ñaanal mu ngi nekk Touba département ba moo doon dajale foofa parrainage mais nee na matal na sëkk ñoom it matal nañ sëkk fi mu ne nii lu leen tee déposé ji parrainage bi moom moom laa xamagul ndax ubbi nañ bunt yi waaye xaalis ba moom déposé nañ ko kon ñu ngi am yaakaar ne dinañ dem si élection yi di ñaan yàlla ñu jàll ñëpp daal di jàll bu ko defee clémaire gañ ki mm-hmm. gañee yàlla doon ki gën ci réew mi mm-hmm. ñi leen sant bu baax di gërëm di jaajëfal bu baax a baax a baax Modou rafet na di ko jaajëfal moom Abdoulahi mu nekk ci nag di sëñ Fallou Gumba la waaye Alaaji Sa Ndiogou son bi amee initiative bi di leen ñaan yàlla na suñu borom yokk xéewal yëpp jërë ngeen jëf yéen ñu nekkoon ci commentaire yi ak di